Basuma Basuma Mbare Soukononko Abidjan la Casamance je vous remercie je vous remercie encore une fois je ne cesserai jamais de vous remercier la ville de Casamance cette grande ville ce beau pays là où nous sommes à la casamatisation de la République. La casamatisation de la République. Donc, il a un grand communiqué qui a été publié de la part de notre papa Kourouman. Parce que ça nous fait mal. Dès que tu fais de PASSEF, tu es considéré comme un casassé. Même en prison, on te dit que de la Casamance. Pourquoi la casamatisation Pourquoi on veut vous faire croire que c'est la Casamance qui a toujours combattu contre le système néocolon. C'est cette Casamance qui est là pour combattre le système. Pourquoi on veut, veut, vous faire croire que nous sommes des rebelles Or, nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des dignes fils noirs. Cette casamatisation-là, cette casamatisation, me pousse malgré le combat malgré le temps malgré le combat malgré le temps malgré les plumes malgré les douleurs mais boy le combat n'a pas encore commencé nous ne sommes pas encore à 200 morts à ce que je sache à ce que je sache et je bien expliqué au minimum 200 morts Je pense que ça fait deux ans quand je le disais. Donc, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Là où toute l'Afrique a soutenu Ousmane Sonko aujourd'hui, vous verrez les vidéos. Ça, je n'en parle même pas. Là où toute l'Afrique est en train de féliciter le capitaine Ibrahim Traoré. par le biais de Assimi Goïta. Il y en a des petits Africains, c'est mes comme je l'ai dit, c'est des grands, mais c'est mes me demandaient, papa, Prigogine, j'ai dit que Prigogine, je ne parle pas parce que c'est raison militaire. Ce qu'il a fait, Poutine l'a niqué, donc c'est fini, je n'en parle pas parce que c'est militaire. Et puis c'est très logique, un traître, on l'élimine, on t'efface, point, c'est militaire, on passe. C'est pas mon problème, moi, c'est le problème des Blancs. parce que c'est on avance la, sur le sujet. Pour les manifestations, vous tous, vous, vous avez peur. Libérons Sonko, libérons Sonko, libérons Sonko, libérons Sonko, boy. J'ai mis dans le sujet, libérons Sonko, ou on risque de tout perdre. Savez-vous qu'il y a un de mes jeunes là qui est en Gambie actuellement Il s'est bagarré avec les gendarmes et puis il a réussi à disparaître. Parce que maintenant, comme je vous l'avais dit, Ils ont installé des guidons là, ceux qui sont à l'aéroport qui te suivent jusqu'à chez toi. Après, ils appellent les gendarmes. Lui, les gendarmes l'ont trouvé chez lui. C'est un homme, il s'est démerdé. Malgré le vent et la tempête, il s'est démerdé. Il a réussi son coup, car, car il s'est échappé. Mais est-ce que ça, c'est un état de droit Non. bu ñu nangulee nekk ñaar rek combat bi soo motu dañuy ñàkk naka la ñuy ñàkkee bu calcul yi bëree rek dañuy ñàkk calcul waratul bëri xalaat waratul am neewoon naa leen ajuma presse bi dina wax par force si yàq yi ñuy yàq ndax ñoom ñëpp ay any time lañ taloon corrigé nañ ma booy ma moo jërëjëf joyeux anniversaire si sa sali parce que saa yu nekk su ma defee ni ay lapsus de son su suuf dañ may woo grand kenn du wax lii lii mën la booy lii laa comprendre xam sali happy birthday sama rakk la parce que doomi Kourouma la freedom jàkkaarloo jënd jinne lépp ñaar la lépp ñaar la jàkkaarloo jënd jinne fa la combat bi toll jàkkaarloo jënd ak jinne code bi fa lay nekk tey moo tax du ma dugg ci détails yi bëri parce que détails yi boo ciy dugg di daanu Guy Marius respecté naa la lool mais newoon naa leen tey ajuma tey tey presse dina wax mu koy neex di koy naqari lan la ñuy yàq ci réew mi yan tiyo ndox moo toj wax nañ leen yan yoo ndox moo toj nañ leen wax yéen xam ne na ñoon toj nañu ñu ngi sabotage de circuit d'eau tey ngeen ni doo ko wax ndax ça concerne Touba gars yi maa ngi waxaat de j'assume je signe je persiste Guy Marius nekkul yow non non non man combat bi may mëne saa waay du yow yaa ma ciy génne booy ñii dañu débranché tuyaux yi toj mais yéen li ngeen wane ak li ñu yàq bokkul de da ngeen waroon wane li ñu yàq grenade lañ ko yàqee te j'assume BN boobu ñu si bind pour lan ngeen di wër BN te muy Baye Ndiaye loo wër ci BN maa ne booy loo leen yàq def leen fa sama initial je l'assume ñi ngeen koy pare ji ñëpp du ñoom tuyau boo ko tojee au minimum réparation bi dina jël ay 4 semaines cinq te Kër Momar Sarr toju fi woon 2012 ba Macky Sall ñëw di ko réparé doomeraam ji fa leen defalee ay bagage am keroog bi mu leen newoon plan Kaolack xamoon ngeen ne feneen laay jëm code la jeunesse <laughs> plan Kaolack bi des na de <laughs> newoon naa leen tey di ngeen wax ci luy yàqu ci réew mi par force mu leen di neexti mu leen di naqari te je bu fekkee Suez moo ko moom it maa ngi France depuis suba yaa ngeen ni réunion siège moo mag ku nekk bëgg a daw res Guy Marius Sagna def ko de presse naan bien public le bien on s'en fout des biens publics Macky sal li muy def nii lu ko neex lay def c'est un merci mon frère c'est un vrai bâtard fils de pute merci beaucoup tous les africains nous insultent tous les africains parce que bu ñu mak Macky ñun ñun la ñuy saaga loolu ni xaar pour wàcc yéey kii lan la ñuy xaar ñun sénégalais lan booy man xamatuma lu may wax sénégalais yi parce que yaa ngi gis da ngay live sénégalais yi nii dañuy dox ak man africains yi dañuy dox ak man daje di jooy ñu mën man ñun sénégalais yi ñun lan la ñuy xaar lan. F24 li ma leen waxoon bi passé laa leen di wax yéen France nañu boolewaat doole yi foog ñu regroupé waat foog ñu boolewaat doole yi gars yi nañu bàyyi affaire kii gis nga Pastef ku ñuy jiiñ dëmb duñ la fekk ngay seeñoo pooju liir Sonko bu yaatawul woon ñoom Barthélemy Diaz tey kenn duñu siiw Sonko bu yaatawul woon te ñoom Khalifa Sall duñ ñëwaat ba tey ñuy werante naan dañ leen trahir ak trahir luñ leen déedéet Pastef xeexu mbooloo moo gën xeexu benn nit F24 contre naa leen lool yàlla rek a tax may wax F24 Sénégal laa contre parce que c'est trop théorique demandé ay loo xam ne kenn du la ko jox se moor déposer ay autorisation xam ngeen ne c'est faux yéen a ko gën a xam yéen joxuñu leen autorisation vous vous permettez passer fëkk ñëpp dinañ commencé ne non les biens publics les bien publics ku ma si woowaat yéen ñi woo si suba naan ma les biens publics tué gauche droite ma tey xam nga Suez moo ko moom France moo ko moom nee ngeen ay plainte day am ak Suez moo ko moom France man j'assume plan Kaolack libéré leen Sonko wala màggal du am ngeen ne ma màggal dina am par force nañ dem waa léegi boo leen demee Touba naanu leen ndox dinaa xam loolu ne naan te des na de programme bi c'est lii ak vas gars yi maa ngi ñëw fi ngeen doon calculer du foofu <laughs> jóge leen Kaolack ba plan bee tudd Kaolack reste militaire vous êtes barki dem nee naa leen am na ñuñ ma woo naan ma non grand tel opposant tel opposant du ma kenn si ñaari agent GIGN yi direct laay wax yéen ñëpp yaa ngeen naan foo billet nit day wax lu ko wóor ab agent GIGN billet noir lay doxantoo mais di doxantoo foo billet billet noir mooy billet yoo xam wax naa leen ko fi sama benn live Gàmbi lañ koy raxasee ak fépp mais léegi senegal lañ koy raxasee Farba mënoo di raxas billet yi ngeen am problème ak seen waa ji nga bëgg ne gars yi nañ la ñëw raxasil ñuy ñëw nga sarax leen gendarmerie ba pare publier ko mu siiw gaaw yow Farba Ngom agent yi eh bugg leen kenn sacrifier ci cette grande miette buñu ñu leen naree sacrifier ci cette grande miette je vais donner vos seen njaboot xam lan moo tax ñu jàpp leen ndax samay booy ngeen xam ngeen bu fu may waxee. le don di soir bi ñu toll nag foog ñu yegg ci mooy suba gaa yaa ngi ni di départ pare dem 6 place Wilson sëñ Cheikh Thioro Mbacké nag mu ngi fa te foog naa ne suba yéen kon ku am jot le don di soir war nga ko dem defi gars yi solidarité éducative la ñu war a nekk te suba lañ ko war a woon tubaab bi suba la ñu war a fenloo ñëpp ñu naan ñun dañ fi nekk di saaga sëñ si aywa sëñ Cheikh Thioro Mbacké mu ngi suñu suba gars yi code code code code ñun suba la ñuy commencé suñu màggal te ñu ngi ci safar code lu manifestation bi neex neex neex suba ñun sëñ Cheikh coro ñun suba moo fii représenté suba suñu xalif général ndax Mbàkke Mbàkke la moo gën ñoom Cheikh Abdou Bara Dolly ñun saaga ñu Mbàkke Mbàkke contre ñu Mbàkke Mbàkke ñu nekk ci système bi doon ay lâche système bi di takkal kër gu Sëñ Tuubaa bi la ñuy saaga seen day ak doomu bëkk nekk yi yéen waa Paris yéen ñii di dem Suisse sëñ Seex Coro Mbàkke noo leen ko mun a ganalee noo leen ko mun a warmaale noo leen ko mun a sigilee pour fen loo ñu ne ñun dañ fi nekk di saaga doomu Seex Seex doomu sëriñ si di ngeen xam suba ñun lan lan la ñuy respecté code yéen ñi di dem. Cheikh Thioro Mbacké suba jàppee leen ko ni Ousmane Sonko ni leen gënal seen bopp wàcc na Suisse suba yéen ñëpp soyez présent yéen ñi di dem Suisse man suba maa ngi république république ñëw leen ñu taxaw xeex xeex bi. combat bi moo si mën génnee Sonko nanguwul lekk. bu bu inconscient ñu dóor ko ay perfusion c'est obligatoire lu ma leen waxoon l'armée va prendre ses responsabilités et l'armée a pris ses responsabilités lépp loo xam andiloon nañ ko anamu militaire yaa ko jëlal seen bopp teg ko seen biir bureau yee maan ay maan tomorrow yasaay ñuy wax di cali cali lekk bi lekk bi lekk bi Macky Sall mënu fa dugal lekk nit ku feebar ba ñu dóor ko nekk réanimation ay perfusion Macky Sall mënu fa dugal lekk moo commandant Mamadou Mansour Diouf ragaloon naa tudd sa tur mais comme Pape Alé Niang tudd na la dama tudd état de santé santé Sonko li ci commandant Mamadou Mansour Diouf di suivre amul kenn ku koy suivre Sénégal li mu xam ci Covid 19 amul kenn ku ko xam ci Covid moom mooy commandant boobu daan toog ci Covid 19. kooku c'est un commandant médecin militaire réanimateur rek lay def réanimation foofu moo lay woon bu fa malaat xasee toll mu ngi ci beneen phase ndekete Sonko génn maa màggal du am déjà li ñu yàq ni balaa ngeen ko reprendre day mat 15 jours dina fekk màggal gi jot. léegi comme dëkk bi dafa inondé nag plan ORSEC bi la jeunesse cinq combattants yu dévoué moo ma gënal mille combattants yu dévoué tey ajuma o oh, tey bu presse bi waxul woon ne toj nañu tuyaux yi toj nañu lii toj nañu lii rek kon tey du ma nekk parce que kon dafay mel ne dama wax lu ma waxul leen ni laa leen par force presse bi dina tudd lu ñuy yàq presse poto yi ñuy yàq poto kii affaire courant yi ñuy yàq centralu courant yi ñu taal pour lan doo leen ko wane lan moo tax temps yi coupure yi bëri ay Ziguinchor lan moo tax coupure yi commencé bëri la jeunesse fii metti la ñuy laal nee naa leen xeex bi beneen stratégie lay jël beneen form beneen form taal buus yi ci kaw bloqué économie su suuf ñu ngi xeex yaa ngeen koy jëf lii ñëw nii waaye am na lu neex luy ñëw Macky daw na dëkk bi bokk loolu lañ ko bëgg a xamoon dëkk bi nu mu ne selaw waa ji di turne di tourner senegal xam nga lu ko yàq mën na mer ne ba ne damay coup d'état bu waa ji dawee dialogue bi nekk si suuf dialogue bi ñu chantage nu Ousmane Sonko parce que médecin yoonam nekkul ci affaire yooyu médecin du bokk ci coup du bokk ci dara code dëkk bi nee na tekk ñëpp tiit code bëgg xeex bañ xeex bëgg bëre bañ bëre sinon bracelet xam nga fu ñu mujjee dagg sa loxo démb si amul booy bokk jom yi di football way Sonko gémi yi dóor leen ay lacrymogène ngeen bëgg ne mënu Sonko def hôpital il est sous perfusion sous perfusion du dee ndax perfusion kii la glucide la bu ko nag bu ko neexee débranché perfusion bu ko neexee du lekk bu ko neexee du naan loolu moom gars yi man mi ay caga jaraluñ ma li muy def nii mais nag situation oblige ci ger lañ nekk chacun va y laisser ses plumes atiyam combat boo ci tolloo yéen sénégalais fokk nekk dépassé sa bopp dépassé say mbokk dépassé say gëm-gëm toll nañ foo xam ne ay chromosome la ñuy commencé xeexee x y chromosome x y mooy saay mën nga ñëw ne Kaolack lañuy dem taal gendarmerie yëpp daw dem këwoon këwoon di surveiller seen xërëm yi man mi xam fi ngeen def seen xërëm yi grenade su ma ko dugalee si tuyau bu tojee <laughs> balaa ngeen ko defaraat wax lu set te kër ma marsaar bi ñu tojee foofu am na benn parti boo xam loolu ñu ne la leen woon affaire boobu waroon jógee Europe ñëw sur commande loolu bi mu jógee Europe ñëw genre filtre la amul lu Macky deful ci biir foofu moom 2012 lañ leen miine yeew leen ak Macky Sall mu moom réew mi lu mu wax yóbbu fitu nit ñi mooy bi muy commencé di dóor table bi ne man maay borom réew mi man la fal mu ngi foofu kër Momar Sarr directeur bu fa nekkoon en ce moment un certain Abdou Mbaye waa ji jullite bu gars yi daan bëgg liggéey guddi muy dof dof lu xam nga gars yi lu ñu def jël ko affecté ko SDE bu dakaar faxas c' était un très jeune directeur du Nodo Abdou mbay dem leen vérifier information yi boobu maa leen ko mayaat tey loolu la leen Macky Sall def foofu Kër ma Sarr moo tax démb ñu naan ma tuyoo yi tuyoo yi tuyoo yi BN moo ko toj maa ko toj j'assume maa m'avez appelé ce matin ba Guy Marius am lu muy tiit Guy looy tiit gi ñun si combat lañ nekk même si t'es un député man gii tuyau bu jaaroon sa kër yow wala nga si naan ndox dama koy toj moo capitaine yow mi ma mujjee woo sànq lan laa la tontu sëñ mu Saliou nekkul Touba nekkul fa ak njabootam su ma doon calculer est-ce que du kon moom laay calculer booy ci xeex lañ tollu faal. man ñoom épargne ñu sama njaboot ngeen bëgg na ma ay ñoom Guy Marius Sagna non nit ñaa ngi dem Touba nit ñi fay dem dañoo bëri ndox bi nii mais déedéet ndox bi laay toj ndeyam kenn du naan parce que Sonko n'est pas libre personne ne va boire de l'eau man je supprime tout quand la guerre comme à la guerre nekkatuñ fi di am ay sentiment gii je regrette trop mais man nekkatuma ci yooyu ay tu te prends des risques déggalu ma la Macron mooy petit pénis koy bu ndaw la Assane Ouattara mooy xuur droite non Alassane Macky Sall mooy xuur droite Alassane Ouattara xuur gauche pour muy clair Macron petit pénis Alassane Ouattara testicule droite l'autre testicule gauche yo loolu je signe man nekkul Brigitte Macron wala seen Darmanin mi le ministre de l'intérieur la moo celui que celui là qui va me faire taire non non non je regrette yéen je suis loin de vous dans ce combat samay conviction ak yéen moo taxoon commencement bi ma ne leen bokkuma ci combat bi révolutionnaire la bokkuma ci combat bi révolutionnaire la dama ëpp combat bi ndax samay wax doo leen ko digérer te dama koy wax. et di ma di ma saraxu naan ma bàyyil diw déedéet Macron petit pénis Macky Sall testicule droite Alassane Ouattara testicule gauche Brigitte cul Darmandra cul gauche. Pourquoi j'aurais peur de ce que je dis Même devant le tribunal, je vais le dire. Mais au Sénégal, devant le, <laughs> le procureur, je me répète. Donc je vais venir en France, c'est des humains parce qu'ils sont blancs, je vais avoir peur. Je regrette, man. Donc, viens Gomis, nga yàggali sa don du choix bi on termine avec ça <laughs> demain demain on a un grand programme là en République et on doit s'organiser si tey foog ma andi invité le don du choix parce que ñoom laay laay fandool si maa ngi live nii en direct kaay kaay kaay jël kaay sa part kaay viens viens pour le don du soir là viens viens mooy <laughs> déedéet foog ñu combat combat bi foog ñu def bloc bloc chaque jour da nga naan ma lan moo tax doo live ak lan moo tax doo live ak voilà tey andil naa leen kenn ça c'est Paul Gomis ñoom ñoo ma dugal ci combat bi ñoom ñoo nekk ci affaire bi chaque jour ñooy nekk. ñoom ñoo ma dugal ci bi salaamaaleykum mbokk yi jaa ngeen jëf di leen siyaar di leen bégee. voilà mbokk yi. combat bi fu mu nekk nii waaw rafet na ba pare mais wax dëgg rek moo jot waaw Seydina Ousmane Sonko fu mu toll nii nii euh, dafa soxla ay gars yu déterminant ñu war a mën a taxaw si mbir mi joxe seen bopp mooy fu don de soi bu waa ji leen waxee don de soi bi nag du dara lu dul nit ku nekk li nga mën si combat bi nga def ko bu dee ab joxe ndox yàgg nañ ko répété mais maanaam bu kenn tamit toog naan day xeebal moroomam lu mu mën ci combat bi di ko def fu mu toll nii nii soxla nañu ñun ñëpp ñu fóot xol yi booloo te ñu sincère nag. surtout dóor gi bëri na trop. sincèrement nag dañ koy wax rek te dee fi moom bu ñuy wax wax dëgg moo tax ñuy wax. dóor gi bëri na ñu fóot xol yi te xam ne combat bi amul benn star amul fii kenn ku fi star ku dul Seydina Ousmane Sonko. point nee leen maa la tegal cayen nii nee leen maa la bi nag. déjà dañ koy masawu. mais en même temps tamit. di ko ndokkale si. waaw nouvelle bi ñun Baye waaw comme lu mu waxee rek Baye Fall ba pare en même temps militaire. Ah. donc xam du ñu toog si sentiment yi daal. Hmm. waaw mais di leen wax yéen ñi ko yéen ñi ko sopp. yéen ñi ko sopp di ko yàgg di seetaan. na ngeen ko jàppale bu baax a baax a baax a baax. na ko jàppale bu baax a baax a baax na ngeen ko taxawu. waaw yaakaar naa ko si yéen sincèrement saa yuy live man tamit maa ngi si live bi maa ngi gis nag gars yi sincèrement si ni ngeen si nekkee mais ñu ngi la ñuy jaajëfal bu baax a baax a baax sincèrement. patriote yi. ñi sama bopp. parce que nañoo booloo dama leen ne damay ñëw ci rek ñu ne ma kaay génn wax. no te ñoom xamuñu ne nekkul man maay wax dama am gis nga ñii ñëpp. non da nga di bàyyi faal da nga di bàyyi faal da nga wàcce bopp tey déedéet donc yéen da ngeen di bokk si lu may xam nga tey balaa maa live toog nañu fële waxtaan nga ne ma don du soir dëgg chaque jour balaa maa live kon du man maay génnee lépp dëgg fii laay waxee man leen kenn du star dafa am ñu ñuy waxloo am ñu ñuy wax dëgg bàyyi leen bu ñu ñëwee teg nii laay fëri déedéet su boobaa rek da ngeen saaga parce que da ngeen foog ñun ñoo gàddu combat bi fekk yéen waroon gàddu combat bi ñun ñu pousse leen dëgg fa la waxee jàpp leen ci combat bi si numéro bi mun ñu wax lépp te wax lépp ci suuf lañ koy réunion waaw comme nu pro nu muy waxee gars yi rek voilà solidarité bi mën ci génne doomu Casamance jaajëfati big up Paul lii rek laa soxla ñii ñoo ciy jàpp ñii ñooy sama bopp sama mbopp man man triangulaire laay liggéeyee ñii ñu ngi Sénégal ñu ñu ngi fépp loolu yëpp laay rassemblé wax leen kon du ñun du ñu dara du ñu ñëw andi suñu apport si combat bi jàpp leen si tuyaux yi maa ko dóor Jachim gii boo meree na nga tàccu Pastef ay El Malick Ndiaye ak maa ngi gis ñëpp mar naan mu Touba Touba je m'en bats les couilles sëñ Moustapha mu ngi fa te damaa sanctionné njabootam kenn du màggal maa leen ko waxoon noo yóbbu naa leen Kaolack noq sama yeneen tuyoo fële des na leneen vulganisateurs yi préparé wu leen maa leen di wax rek maa leen di wutal liggéey ak xaalis bu weex tàll xaalis boo xam seen ñaq la dinañ seen ñaq la de du sàcc du xaalis bu xaram boo leen ci liggéey un million si màggal gi seen ñaq la même boo leen demul Touba mooy gën ndax ngeen nekk si yoon bi job jàpp leen si combat bi ma matalaat étape par étape man lu ma def presse da koy wax mu ne ni nee ma la moment yi décision yi ma jël billaay fu ma laal ba jóge fa presse da wax wax billahi wallahi taala fu ma jaar ba bàyyi presse wax ibu Fall fu mu jaar ba bàyyi presse wax fu yeneen gars yi jaar ba bàyyi presse wax tey nag mënu ma dema ah, te dañ ma yónnee benn vidéo ma gis Gattuso laa sol short bi di jotu tey tët tët mais gars yi Mollah bàyyi adduna non waa ji dina ma rey lii lii moo soof si man booy àndax man dama lay wax dëgg quand il le faut terewul toujours fi si sama logique laay nekk waaw Mollah Gatouzo waa tey reeloo nga ma nag tey yaa ma xaw a delloo si waat mooy bi ngay dàq yooyeeg rey weñ yi Kaolack bërëng mën a jot tey ça c'est le comble saa yi nag dafa baax mais moom ay sujet yi sensible te dëggal bàyyi leen waxu Sonko actuellement il est sous perfusion on avance on pète Macky et on va le péter avant jàpp leen si combat bi toujours comme dak Paypal ak lépp loo leen yónnee na yi xam ne rek si 06 05 59 96 00 06 05 59 si 00 surtout boo bindee Cheikh Diallo jeex na day ñëw loo balancé booy jàpp yónnee Ziguinchor encore une fois merci encore une fois félicitations encore une fois jërëjëf kon Cheikh Thioro Mbacké kon demal naa ni ndox bu rafet demal naa ni ndox bu sell ndax sa dëkk bële ndox dem leen koy privé ba màggal passé incha allah Touba bu neexee yàlla privatisation d'eau tant sun koo génnul bu koo génnee ma bàyyi leen ngeen màggal bu Sonko génnul doo leen naan ndox bu soobee suñu borom félicitations basumo basumo mbare sume sume kot suko non ko merci beaucoup la population on gère